Dakar Media mbokki internet yi dal leen ak jàmm ñu daal di ñëw ak yéen ci l' actualité li gën a fës ci internet bi daal di koy tàmbali ak Pape Cheikh Diallo mi nga xam ne benn extrait vidéo am ci émission Midi bi mu ngi nekk di devenir viral lëmbeeloon internet bi parce que nag daf ci daal di déclaré ne moom sa Pape Cheikh Diallo il était devenu fou jamono yële ci ginnaaw bi nga xamee ni waxoon na ne dafa feebar moom nee na dafa dof woon dafa ame woon ab problème mu xel psychologue bi nga xam ne moo ko suivre jamono yuñ toll nii moo ko daal di xamal li ni mel mu nekk nag ab déclaration ba nga xam ne mën nañu ne jaaxal na internet yu bëri mais nag duñu ne guléet muy daal di dal ki nga xam ne dafa nekk ab célébrité ndax ndax ay jamono ci ginnaaw gisoon nañu fi problème de santé mentale bi nga xam ne kii di Marie Alima Alima Gadji ñu gënoon kaa xamee ca turu Mahim Dial ci série bii di maîtresse d'un homme marié xamle woon na ko fi moom mi nga xam ne sax demoon na ba nee na ab bés mu daal di laale ak benn waaye ci kaw tali bi mu ne ko xaw ma dof naka la ñu koy joxee këyit ak oto mu naan dafay dawal problème mu santé mentale am nag moom Alima Gadji il elle en avait fait li nga xam ne waxoon na ko nag mooy le plus souvent dafa daan jot ay messages de beaucoup de sénégalais yu ko doon wax naan ñoom ak moom ñoo ñuroo feebar maanaam ah, ñoom aussi dañoo am ay problème mentaux mais nag ah, mbokk i nu ñu leen gëm ndax dañoo jàpp ne dañoo am ay rab wala jinne rek moo leen daal di sonal ba tax na ci maama nii la ñuy dem mu nekk la nga xam ne nag ah, c'est très normal nit daal di koy souffrir parce que nag nit ñi muy toogee yaramam du neex parfois aussi noonu lay amee des problèmes mentaux dafay soxla suivi dafay soxla ay nit ñi nga xam ne ñoom ñoo ko war a jàppale taxawu ko kii di oustaz Modou Fall moom nag mu daal di artu ay kàddu ci wàllu violence bi nga xam ne moo lëmbay internet bi jamono yuñ toll nii nee nag xale yu jigéen yi nga xam ne ñoo fiy toog naan stop à la violence faite aux femmes ñoom ñoo ñee bu ñu paree ñooy ëlbatiku dem ci xale yu góor yi di leen ñaan duñu réeree maanaam li nga xam ne ñu ngi koy wootee ci parité ak indépendance jigéen nekk na la nga xam ne gëmuñu ko fii ci réewum Sénégal mais nag nañu bàyyi xel bu baax ne li nga xam ne dafa nekk violence dafa nekk ci ñaari wàll yëpp am na ay góor ña nga xam ne dañuy violenter jigéen mais aussi am na jigéen ñi nga xam ne ñu ngay violenter góor ndax boobu ba tey gisaguñu benn xale bu góor génn di wax li nga xam ne mu ngi koy dund ci néegu sëyam jigéen ñi dong ñooy génn di wax kon nag jot nañ ñu daal di leen bàyyi xel lool wala sax problème bu fekkee dafa am ñu daal di déglu ñaari parti yëpp ca ñaari parti yooyee nag la ñuy ñëwee ca kaw kii di docteur euh, Alioune Badara Mbacké moom mi nga xam ne daal ñu koy teg loxo wax nañ ne nag keneen ki nga xam ne moom moo de desoon ca band ba moom aussi mujjee nañu kaa teg loxo gannaaw nag ba mu prétendre ne moom dafa daal di génn réew mi actuellement nekk fi il est parti nekkul dëgg libération ñoo daal di fasal ni mel dafa bokk ci ñetti agent de sécurité yi nga xam ne ñu ko doon liggéeyee ci hôpital bi nga xam ne docteur Alioune Badara Mbacké moom moo ko doon jiite la def nag mooy daal di jël kii di Dieynaba ànd ak moom kii di Alioune Badara Mbacké ak chauffeuram yóbbu ko ca ànd ba daal koy dóor bu muy bëgg a direction Dakar ngir daal mën a gëm loon nit ñi dafa am problème mentaux donc ñoom ñoo ñee nag non assistance à la ñu leen mën a toppee ca wàllub yoon boobee ñu daal di ji yi daal di ñëw ci kii di Ameth Ndoye comme ni ngeen ko xamee moom chroniqueur bi nga xam ne mu nga nekk foofee ca la Sen TV nekkoon d' que journaliste moom nag daal di nañu koy arrêté ni ki démb ca kanamu benn hôtel de la place gannaaw ba ñu doon amal ab conférence de presse en compagnie de Cheikh Yérim Seck ak ki nga xam ne moo nekk Abou Diallo Abou Diallo nag daal di dénoncer la façon dont Ameth Ndoye a été arrêté wax nañ ne nag daal di nañu en garde à vue démb ci jeudi le 23 bi nga xam ne mu nga nga nekk foofee ca Sébikotane toujours ci mbir yi nga xam ne daal dinay laale ak moom Ameth Ndoye poste bi nga xam ne amal na ko ne nag au moment de l'arrestation amul dara la nga xam ne daal na koy wokk wala mu xokkatal ko il était en parfaite santé yuuxuwul mais aussi deful dara la nga xam ne nit daal wax na ko ci mën a xeebee la nga xam ne waru ko woon ñu daal di leen fàttali ne takk yi information yi nga xam ne daal dinañu koy fësal ci li tax ñu daal di koy arrêté moom di Ameth Ndoye moo nekk keroog bi nga xamee ne mu ngi amal ab l'accident ca kaw euh, benn xale bu góor mag la sax donc moom moomee di Ameth Ndoye gànnaaw yowul woon ak de conduire la mu leen waxoon mooy après dina leen indil permis de conduire bi ndax daf koo daal di bàyyi këram ba ci démb ci jeudi bi takk der yi ñu ngi ko doon xaar gisuñu ko dégguñu ko moo tax nag gannaaw ba ñu yëgee ne mu ngi teewoon foofee ca conférence de presse bi nga xam ni Cheikh Yérim Seck mu ngi ko doon amal ñu daal di ko fay fekk daal di de à son arrestation mu nekk ay déclaration yi nga xam ne nag uute na ak yi nga xam ne jot nañu kaa fësal kii di Cheikh Yérim Seck avec des preuves mu daal di attestation bi nga xam ne takk dex yi ñoom ñoo ko daal di jox ki nga xam ne moom moo nekk Ameth Ndoye gannaaw ba ñu nangoo son permis de conduire dem na sax ba daal di lire numéro de permis de conduire bi aussi li nga xam ne wax na ko moom Cheikh Yérim mu nekk déclaration bu doy waar mooy ne takk dex yi Ahmed Ndoye ci registre bi maanaam la ñu bëgg daal jamono yuñ toll ni mool daal di koy éliminer ci géewum politique bi ndax dafa nekk ci di déranger mu nekk nag ay déclaration yi nga xam ne c'est extrêmement grave mais nag ñoom duñu ca yem ndax nee nañu dañuy di def ab plainte contre la police nationale du Sénégal loolee nag moo nekk li nga xam ne daal dina ciy xaw ni ki démb nag ay boori 23 heures la ñu fësal ne Ahmed Ndoye daal dinañu koy placé sous euh, en garde à vue foofee bi incha allah probablement moom mooy di Ameth Ndoye dinañu ko daal di déférer au parquet toujours ci l' actualité mbokki internet yi ñu daal di ñëw ci ki nga xam ne moo nekk Ousmane Seck gannaaw ba mu fasalee ne Wally Seck ak ñi nga xam ne ñoo nekk ses frères et keroog bi nga xamee ni ñu ngi maye kii di Aïcha Rassoul Seck li nga xam ne def nañu ko ñaaw na lool ndax amul benn membre de leur famille ba nga xam ne ci côté papam daal dinañ leen di invité ñoom nag mel na sax ci internet bi la ñu ko daal di yëgee kenn tàgguwu leen kenn euh, boolewu leen ci dara et pourtant ñoom ay waajur lañu donc nag am na cër ba nga xam ne wax nañu leen ko séddee. ngénte Krépin Diatta Krépin nag moom footballeur international sénégalais bi ak kii di Mayram Aw na dinañuy am doom bu góor ñu gis ne nag image yi nga xam ne moo rotee ca mariage boobee mu ngay lëmbay internet bi li nga xam ne nag moo ci gën a neex ñu bëri mooy moomee di Krépin Diatta nga xam ne dafa nekk dans la religion du christianisme turu doomam bu góor bi dañ ciy gis ne daf koo daal di dippee yonent bi sallallahu alayhi wa di Mouhamed macha allah nag mu nekk la nga xam ne ñu bëri ñu ngi koy saluer ñu ngi leen di féliciter encore une fois ñoom lay Diatta di ñaanal seen doom ji yàlla na dund am ndey ak baay toujours sur l'actualité ñu daal di leen fàttali mbokk internet yi ne kii di Mia Guissé gannaaw ba mu amalee ab réaction ci problème mu kii di Dieynaba njaay gis nañu ne nag doomam bu jigéen bi dafa doon fêter son anniversaire Mia gise nag daal di koy dijjee ak clip euh, mère célibataire way boobee nekk la nga xam ne sax gis nañu ne mu ngi tàmbalee di cartonné ci réseaux sociaux yi Mia daal mel na ne jamono yu ñu toll nii musique sénégalaise bi moom moo ci dal di teg loxo mais nag dafa am benn partie live bi nga xam ne mu ngi lëmba internet bi gannaaw bi nga xamee ni xale bi daal dinay apparaître ci live boobee Mia doon def wax ne nit ñi nee nañu dangaa ñuroo ak sa papa xale bi nag manière ya mu doon def euh, di wane ne moom dafa lànk carrément daal di ñuroo ak ki nga xam ne moo nekk no face am ña nga xam ne sax dañoo yaakaar ni miyaa xëy na moo am la nga xam ne jot na koo sol ci boppu xale bi am ñeneen ñi nga xam ne nag li nga xam ne gis nañu ko moo nekk ne xale bi daal peut-être dafa nekk nga xam ni yaayam la gën a takk ndax moom la dëkkal ñoo ngi leen di jaajëfal mbokk yi ci teewlu bi ak déglu bi di leen jox dig daje beneen yoon incha allah ci seen beneen numéro d'actualité people jërë ngeen jëf